kon tey jii ñun li ñuy demander rek mooy ñu fal président le 2 Macky nag bu poussé affaire yi ba le 2 organisé wul élection moom ci boppam dañ ko fay jëli léegi nag am na ay généraux am na Moussa Fallam am na Maysa Sele Ndiayam am na ay nitam am na ay nervem am na ay ASPM yi nga xam ne daf leen érigé en ministère euh, délégué xam nga ministre auprès du ministre ministère auprès du ministre de l' intérieur kenn xamul loolu mooy lan donc. moom defaru na yaakaar ni mbir ni doole la gis nga askan kenn mënul ci moom dara même pas armée le peuple aura toujours le dernier mot te bu fekkee ni loolu la waaj dina fekk askan bu taxaw incha allah yaakaar naa ni Sénégal yokk nañ fi gaz gasoil cent franc essence cent franc kenn waxul barki Dembo Ndiaye yokk nañu ceeb saaku ordinaire bi jële quinze mille ba vingt mille pour ñuy jënd ceeb euh, parfumé bi vingt mille ba vingt cinq mille kenn waxul yokk nañu gaz yokk nañu électricité yokk nañu lépp nit ñi wàcc ñu ci mbedd mi mais bu mu jëlee décret ni aj naa élection ci la dëkk bi tàkk kon ñun dañu tenir ci suñu liberté ak suñu alternance démocratique kon loolu bu ci jàngatul dara na fi jéem a toog ba le deux mu xool ba weesu le deux te amuñu élection wala amuñu beneen président parce que bu boobaa moom du fi mën a prolonger mandat am de force parce que moomul nit ñi gënu fi doon góor kenn gënu fi doon gor kenn gënu fi doon sénégalais kenn donc constitution ak loi yi ko tënk moo ñu tënk ñun mënuñ ñu tënk ci yoon ba noppi moom mu jéggi yoon pour tënk ñu ñun ci yoon kon bu boobaa ñun dañuy tegg yoon fële parce que je dis souvent quand le peuple ne peut plus s'exprimer par voie de droit s'exprimer par d'autres voies et de droit askan bu demee ba mënatul exprimer wu ci yoon mënatul exprimer wu ci yoon jéggi yoon mënatul jot àqam ci yoon jéggi yoon pour jot àqam day daal di doon yoon kon ci situation boobu la buñ ci président Macky Sall teg parce que buñ ci tolloo noonu rek la ñuy mën a taxawee. jërëjëf euh, doyen Clédor professeur doyen mu ngi koy wax léegi au-delà en tout cas selon li nga xam ne moom la conseil constitutionnel wax au-delà du 2 avril le président Macky Sall ne sera plus le président de la République du Sénégal léegi est-ce que dañuy toog rek xaar le 2 avril wala en tout cas am na ay mécanismes de lutte yoo xam ne moom lañ teg. pour que vraiment le président de la république mu def lii nga xam ne ni moom la constitution bi wax mooy lan mooy organiser élection. waaw euh, malheureusement ñun suñu dëkk bi euh, l'hyper présidentialisme wala bokk euh, du ma wax sax hyper présidentialisme mais les pouvoirs exorbitants yu ñu le président dafa désarmer le peuple en réalité xam nga sànq maa ngi wax naan am na benn. procédure bi nga xam ne am na ci yenn dëkk yu bëri yu woote woo ay démocratie mooy procédure de destitution d'un président maanaam président bi nga xam ne am na ci yu mu nekk yi xam ne mën nañu dugal yenn procédure yi xam ne wàccee ko am yeneen président dëkk yu bëri ba ci Brésil bii ay problème corruption tax ñu wàccee président yeneen dëkk tubaab taayee Hongrie wala benn dëkk la la présidente dafa démissionné on l'a poussé la démission te lu ko andi kese mooy dafa gracier benn euh, saay-saay bi nga xam ne ci affaire violu xale yi loolu yëngu askan bi ñoom mun ñu comprendre loolu kii daf leen war donc dafa mujjee démissionné présenté excuse am donc ñun euh, mënuñu démissionné loo président mënuñu ko tamit destituer maanaam ñun kon dañoo jël suñu ñun ba ñu xasee ba voté ba jox ko mandat rek dañoo jeng amatuñu benn pouvoir ci kaw président et lii lu ñu war a euh, joyante la à l' avenir ndax. Euh, gëmuma sax ni pire que Macky ma ñu ko am comme président ma loolu gëmatuma ko Macky c'est le pire président bu Sénégal moo am ci histoire am waaye il faut tamit savoir apprendre de ses erreurs war nañu ut ay jumtukaay yoo xam ne euh, dina mën a gën a jox doole askan bi ma jàpp ni aujourd'hui euh, ñaari moyens que c'est benn bi c'est saisir le conseil constitutionnel pour mu yeggal liggéeyam ndax le conseil constitutionnel assumer wu rôlam dafa dafa jël décision dem à mi-chemin pare taxaw fa ñëpp di tàcc ni gisuma ci courage ci loolu wax dëgg yàlla euh, juridiquement loi bi assemblée jël dafa illégal le conseil constitutionnel doit connaître la constitutionnalité de toutes les lois logique la et normal la maanaam c'est dans la normalité conseil constitutionnel loi bi elle est illégale elle est vraiment euh, c'est clair mais on attendait de la du conseil tànn une date le conseil est habilité soo seetloo dans le code code euh, électoral même en cas de décès d'un candidat le conseil constitutionnel am na sañ-sañ après consultation bi lépp mu jël décision rendre élection yi tànn date maanaam comme que loolu loi may na ko ko waroon na ko def dès à présent comme ça impasse bi duñ ci nekk donc kooku nag defu ko man dama gëm ne il faut euh, tendre la main au conseil constitutionnel euh, pour mu def euh, rôle am donc conseil constitutionnel mën na jàpp dat ci biir mois de mars bi def élection waaye soo xoolee wax ji ndax léegi-léegi dafa am jàngat yi xam ne boo ko xoolee dangay gis ni mbir mi daal am na lu ñuul ci soow mi man balaa ñuy wax waxu dat balaa conseil constitutionnel di addu laa dégg kenn ku ñuy wax Pierre Atepa Goudiaby kii c'est man ñoom ñooy ceux qui tournent autour du pouvoir maanaam Pierre Atepa moom pouvoir bi fi mën ci nekk liggéey na ak yow voilà des gens yi xam ne président bu ñëw ñu ànd ak yow moom man jàppoon naa sax du ma sa toog a teg Macky Sall ndax dama toog gis Macky Sall mu nekk en tournée Macky toroxal ko toroxal bi nga xam ne man suñ ko toroxaloon sama xarit wala sama sama sama membre famille kooku bu toogateeg Macky dinaa gën ci moom Macky woowee ko escroc woowee ko lu ko neex ne cet escroc laa xaw ma nangam nangam xas ko man jàppoon naa sax ni Pierre war na porter plainte Macky Sall ndax le président nag même bu diffamer quelqu'un il est responsable juridiquement il est responsable le président a une responsabilité pénale donc euh, Pierre defu ko Pierre bërëm jékki bërënguwaat ñëw euh, jaxasoo encore ak Macky ba ne Macky ko yónni saa ne kii nag wax dëgg yàlla estime as ma dese woon ci moom man dindi ko waaye ko ba mu njëkkee génn wax dafa ne waaw il faut ñu il faut ñu raisonnable élection instant yi ci février mëntul nekk waaye li délai bi gën a bi nga xam ne du yàqal kenn mooy au moins diggante mai wala juin élection fa la mën a am lii mooy premier wax bu Atépa mën naa am ñu bëri bàyyi ñu ko xel lii la wax avant mais dafay dem seeti ji Macky yeeg day seeti ji Sonko day seeti qui que ce soit mu am ci biir la mouvance présidentielle ñu bëri ñi nga xam ne ils soutiennent la date de mai wala de juin na ñoom loolu mooy yenu maanaa parce que au début soo fàttalikoo dañoo waxat ne dañuy pousse affaire pour six mois juillet def élection lii moo nekkoon seen deal deal bi ak Karim parce que il voulait reprendre tout le processus te bu ñu defoon loolu dañuy reprendre bi defaat ay parrainage soo baa Karim bu déposé a bokk ndax il pare que Macky moo joxe woon parlam dina fexe Karim bokk te dina fexe tamit ñu euh, tëdd sax euh, Ababacar Sall Khalifa Sall mu bokk ñaar ñëpp Macky dafa joxe woon parlam pour loolu donc euh, juillet bi am nañ yeneen tappale ne non weeru koor la weeru koor kay mun see voté man dafa maa jàpp sax ree ndax élection législative yi weesu 31 juillet la si si si weeru weeru kii la weeru nawet la woon maanaam nawet dañ see yàgg voté la mooy nawet kenn du ci voté Euh, élection yi passé nawet gi Touba taw loon taw yu métti donc euh, taxaw ne élection président mënu am nawet xam ne tappalee weesuwul loolu donc ma gisee kon ñi ànd ak nguur gi ñoom nekkul ci disposition organiser élection mars man eh, man message bi laa njëkk comprendre par rapport ak wax yii yëpp nga xam ne dafa isolé waaye wax yi yëpp ñoo bokk lu ñu wax ma gis nag Macky Sall ba conseil constitutionnel génnee décision la décision 1C 2024 euh, moom ci woom waxul Macky tàmm na lu ñor ak lu ñorul même lu ñàkk solo bu amee mu déwul tiwte bind mais Macky bindul Macky dafa bàyyi yoro euh, yoro defal ko communication pour ne président président jot na message bi gis na nangam le président prend acte donc nga gisi kon Macky cherche du temps léegi nag pourquoi i cherche du temps depuis daaw nee leen Macky projet woon na yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV wéy leen di abone ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi